asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu di jiiteel ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa mbakki murit saadix di ñaan yàlla yàggal ko fi dolli kàttan gi ak wér gi di nuyu mboolem jullit ñëpp waaye di nuyu mboolem murit yëpp waaye di nuyu mboolem ñi nga xam ne ci ñoo aju woon ci isbu tarqiya sa seex sëriñ Aatu Jaaj nekkoon seen jawrin ci liggéey bi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di wax la ne jëmm la joo xam ne si yéen jëmm la ju ràññeeku woon joo xam ne si yéen taalibe Sëriñ tubaa la boo xam ne dundam gépp mooy def ko wëyal ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa gannaaw bi yàlla defee mu jàng ba am diplôme yi mu war a am waaye ak xam-xam bi nga xam ne moom la ko yàlla subhaanahu wa taala defaloon waaye yu lépp mu fab ko jëndee ko Sëñ Tuubaa fa yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa mooy dundam gépp mu def ko ci liggéeyal Sëñ Tuubaa euh, loolaa ko andi woon ci Tuubaa gi mu gis ne barab la boo xam ne euh, ku bëgg a liggéeyal Sëñ mooy gën a yaatu te mooy dëkk bi nga xam ne moom la Sëñ gën a bëgg ci kaw suuf si gannaaw màkk loolaa taxoon mu ñëw sanc si fii ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak moom di liggéeyal Sëñ Tuubaa ñu bokk ndoon nekk fii ci dëkk bi di liggéeyal Sëñ Tuubaa muy jëmm joo xam ne ju ràññeeku la woon ndax benn bëgg rek bëgg rek la amoon muy liggéeyal Sëriñ dara ñaareelu ko mboolem kilifa yi euh, jaboot ak Sëriñ gi ñëpp xalif yi nga xam ne jot nañoo wuutu Sëriñ ñoom ñëpp kenn ku nekk la tàmbalee ci Sëriñ Abdul Ahad ba waxtu yi ñu toll ji Sëriñ Muntaxa Mbàkke da gis ne ku fi nekk rek dañuy ànd ak yow ci liggéey bi guddi ak bëccëg di la ci gunge loola nag mu nekk loo xam ne si yéen Euh, ab sag bu rëy la waaye liggéey bu rëy la ci yoonu murid yi boo xam ne kenn du ko fàtte. Hmm. mu doonoon koo xam ne yàlla def na ne jot nañoo jaxasoo ab diir ndax man ci tele bi laa ne di ci def ay émission yoo xam ne ci asaba ak yenn émission yoo xam ne dina aju ci koor gi xeet yu mel noonu waaye amoon na yëg-yëg lool ci liggéey bi nga xam ne ña ngi koy def foofa ca euh, ra ci tele bi ca la ko waral loolu lépp mooy bëgg gi mu bëgg Sëriñ ak tasaare njàngaleem Sëñ Tuubaa rek taxoon mu moo doon ko def ba tax na daanañu waxtaan lu bëri bari léeg-léeg su ma génnee ci télé bi dañee faral di daje ci buntu kër gi waaye saa bu dajee ci buntu kër gi rek li muy njëkk a def mooy day daal di làmb poos bi li ci ne du ko wàññi sax day yëkkat rek jox ma boole ko nag du la soññ fu mu toll léeg-léeg sax mu invité la reer nga ñëw toog ngeen reer toog waxtaan ci loo xam ne dana gën a doxal liggéey bi waaye loo xam ne dana tax maanaam njàngalem Serigne Touba gën a tasaaroo ci addina bi mu rawatina ci xasaayit Sëñ Tuubaa yi nga xam ne moom la bind loolaa taxoon muy ab bëgg-bëggam boo xam ne da ko doon jëfe waaye da doon waxe ku na xam na ne ci daara ji taxawal na loo xam ne ci daara ji loo xam ne ci daara daaray alxuraan mi ngi fi soo demee fekk fa école boo xam ne ma nga fa ñu ber góor ñi ak jigéen ñi waaye soo demee itam fekk fa li ñuy tuddee ab télé boo xam ne si dara du ci dox lu li jàng njàngaleem waaye soo demee fekk fa ab rajo boo xam ne moom it dara du fa dara du dox lu tasaare njàngalam Sëriñ Tuubaa loolu it kon wax dëgg yàlla mu doon liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la bokk boole ko ak nag képp koo xam ne toog nga jotaay Sëriñ Tuubaa bi mu ànd yow ci liggéey bi yaakaar naa àdduna bépp seede nañ gis niñ doon doxee ñoom mooy at mu jot danañ jébbale loo xam ne si lim takku lay doon waaye du ci yem mooy am na yeneen yu sew sewaan yu ne ci biir yoo xam ne ñu ngi koy liggéey ci yoonu murit bi ñooy dalal gan yi ñooy def nangam ñooy def nangam ñooy def nangam yoo xam ne yëpp yoo xam ne du jeex kon ñooñu ay ay jàmbaar lañ yoo xam ne jàmbaar la joon joo xam ne wax dëgg yàlla koo xam ne ci mën nañoo wax ne kenn la kenn la boo xam ne ci lislaam waaye kenn la ci kenn la ci kenn la ci mm, naana euh, yoonu murid wi mën nañoo wax ne ask ummatul islami yi gépp ñàkk rawatina li ñu tuddee yoonu murid wi ndax taxawaay bi nga xam ne moom la taxawoon yaakaar naa bu yàggul rek ku ne gis ne Eh, bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké taxawal na université bi sa ko na xam ne ku tudd université sam xel dem ci bibliothèque mënut ta ñàkk ay téere mënut a ñàkk waaye téere yooyu moo xam ne mooy kàggu xasaay yi nga xam ne moom la ñu dénk téere Sëñ Tuubaa yi loola ca loxoom la ko teg keroog mu jaayante ci kalam mbooloo mépp wax na sëñ bi donte milliard la sax moom loola daan taxaw na ci pour mu egg loolu rek wax dëgg yàlla ak volonté la boo xam ne joxe boppam dafa ko nit la koo xam ne daal daa joxe woon jëmmam joxe am xelam joxe alalam joxe léppam ngir liggéeyal Sëriñ moo tax démb ci bis bi mooy képp koo xam ne yàlla def na nga teew fa gis ko gis la am nga xam ne yàlla fay na ko Sëriñ Tuubaa fay na ko ndax lafa fa teew ci mbooloo yaakaar naa néew na mu teew ci nit ko faatu ci àddina lafa nekk ci mbooloo ay junni junni junni yoo xam ne la leen fa andi ñoom ñëpp mooy bëgg Sëriñ Tuubaa rek moo leen fa andi woon am na ci ñoo xam ne xamuñu ko sax mosuñu ko jox loxo wala buñ ko gisee ci écran bi rek lañ koy gis waaye kenn àndut ak sa sago ñëpp buur daw wuti ba loola nag mbokk jullit li ko sabab mooy liggéeyal gim doon liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu rek moo andi loola. Sëriñ Muntaxa mi mu taxoon nga xam ne Sëriñ Muntaxa ku ne xam ne ne nit ak yàlla la nit ka la koo xam ne si yéen maanaam ba euh, képp koo xam ne téel na la boppam wala mu wane na maanaa jàmbaar nga wala mu wane na yow mii sama waay nga ni mu ko doon waxee dadaa wax ne suñu aatu ana sama waaji keroog bi mu koy jox liggéey bi nga xam ne mooy euh, bibliothèque bi dafa wax ne ana sama waa sa kon ne xam ne ne su mu taxaa du waayoo koo xam ne yàlla gërëm ko kon dañuy wax ne suñu aatu mooy mooy am na ngërëmal sëriñ tubaax waaye am na ngërëmal bu amee ngërëmal tubaa mooy am na ngërëmal yonent bi waaye am na ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala ca loola feeñi ci bis kon a xam ne ne bisub àjjuma la la la la dëdd àdduna te fayar ga ñu denc ko ci gannaaw tàkkusaan gi sa ajjuma sa guddi gi wax nañ ne ku ci faatu wala ci bis bi buñ la dencee mooy ñaari malaaka yi fekk eh, néew eh, eh, ki ñiy laaj bàmmeel ci bàmmeel duñ la laaj dara kon jaam la boo xam ne ci ni ko si xa waxee ci déclaration bi mu def mooy ku am tawféex la ku am tawféex la sa tawféex gi dara wëru ko lu da jaayante moo jaayante am mbooloo moo xam ne ñoom it dañoo ñëw ànd ak moom jaayante ndax ñoom ñu ñu ngi gis noonu ñoom isbu tarxi yi defar gim leen defar mooy koo si gis donte France le ko ay waajuram jànguloo woon su ñëwee danañ fexe ba mën a jàng alxuraan jàng xasaayit koo si gis loo ko gis mu am mënoon naa am ñettam wala mënoon naa am ba fukkam waaye lépp doo ko fab jaayante jox ko Sëñ Tuubaa kon juñu ma c' loola ke leen ko xamal xàllal yoon yi mooy Sëñ Aatu kon loola dañuy wax ne kon mooy jaam la boo xam ne daal wala murit saadex la boo xam ne si yéen mat naa roy ndax démb damay wax ne képp koo xam ne demoon nga ci rob mooy soo jógee ca rob ba rek da nga fa jàngee lu bëree bëree bëree bëri mooy da nga yëg ne kat ndaka liggéeyal Sëñ am solo waaye da nga yëg ne eh, jëfal Sëñ tubaar rek am solo waaye da nga yëg ne kennal Sëñ tubaar rek am solo ndax bisab démbam bi ko fa dem danga nga gis na xam na rek Sëñ Tuubaa rek ay Sëñ fi ne waa loolu li ko sëñ mën nañoo wax ne eh, kenu la mooy bànqaas la boo xam ne saa daanoo mooy dana metti ci askan wi waaye dañuy delluwaat ci la yàlla subhanahu wa taala wax rek allasi xalaqu xalaqal mawta wal xayaata li yabluukum ayyukum ahsanu amala yàlla dafa bind faatu bind dee ngir nattu ni ñi xool ba xam kan moo ci gën a rafetal jëf démb si mu taxaa wax na ci biir waxam nee na ku na xam ne ne moom dafa eggale ab liggéeyam dafa eggale ab liggéeyam waaye mbooloo mi àndaloon ñi ngi fi ñi ngi fi jëwrin la woon waaye ñi ngi fi yéene jàng fi jëf jàng fi wane na aw yoon woo xam mi ngi fi kon su boobaa eh, sëñ bi nee na woon mboolem is maanaam mboolem bu tarxee ñu nosu lañ waaye ñu gën a nosu kon léegi dañuy jàpp ne fii ak ñi ngi fab seen ñi ngi askan wi ñi ngi fab seen tànk teg ko fa mu ko tegoon su boobaa moom day mel ni kon danañ dana metti dem gi waaye su boobaa yéen a jëm amoon ca liggéeyal Serigne Touba li yéen a jooju dana mën a continuer ndax mbiram Serigne Touba moom du dellu gannaaw kon ñi fi ne nañ leen ñaanal yàlla mooy Serigne bi nga xam ne moo ko jiitu muy Serigne Youssou Diop moom it ñu ñaanal ko yàlla yan bi di sim yan bi woyof ci moom ba nga xam ne yéene ji nga xam ne moom aatu amoon na ko ci liggéeyal Serigne tubaa ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak moom moom it yàlla da woyofal ko ko ba loolu mu man koo eggale kon metti na ci jullit ñi waaye ku na xam ne ne fa jëm moo ko dàqal lépp mooy nit ku ne kuy bay rek danga wàcc kuy liggéey rek bés dana ñëw yàlla nga wuy ji wàlla mu fay la kon mën nañoo jàpp ne moom ak demam mooy daa dem rek ngir suñ borom fay ko ci jëf ju rafet ji xam ne jëf na ko ci tarixatul muridiyya waaye jëf ko ci jullit ñëpp loolu kon de am nopp la ci moom am nopp loolu la ci moom keneen ñëw aw ko keneen ñëw aw ko rek loolu rek lay doon dana tiis dana metti waaye nag foofu rek la foofu rek lañ koy teg kon daal ñu xam ne euh, murid nañ gën a góorgóorlu sa xam ne Sëriñ tubaa képp ku ko liggéeyal mu fay la liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy liggéeyal yàlla te yàlla du neenal jëf mooy képp ko rafetal suñu borom dana la fay sa bokk na ci liñ mën a jàngat ci demam gi mooy xam nañ ne ku daa rafetal la muslim la woon moomin la woon muxsin la woon ab jullit la woon ku gëm yàlla la woon ku daa rafetal la ci nit ñi jëme ci nit ñi loolu ñëpp seet nañ ko nit la woon koo xam ne ku ubbeeku la woon nit la woon koo xam ne ku tabe la woon nit la woon koo xam ne borom xam-xam la woon waaye nit la woon koo xam ne si yéen ku rafetoon ay yéene la waaye nit la woon koo xam ne yitteem jëpp mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa kon kooka nag su fekkee ne murid yi roy nañ ko ca loola su boobaa mën nañoo wax ne kon daanaka mooy ci kanam rek lañ jëm ci kanam rek lañ jëm fa mu nekkee suñu borom da ko fa fekk ak i xéewal waaye ñun ñi fi nekkee sa des fi sa fas yéene ko fas yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa mooy ñu faxe ba fa mu tegoon tànkam ñu teg ko fa rek bu ñu ko defee yëfi day jëm kanam waaw waaw